la ilaha illallah la la la ilaha la la fa la ilaha la la la ilaha la la la ilaha ilaha illallah la ilaha illallah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin laa hawla wa laa quwwata illaa billahi aliyyil aziim waqdi hawaa'ij allazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu inna allazina saarahoo fi xidmati falahumu diyaar wastal jannati barke borom Tuubaa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa santaat nañ sunu borom subhaanahu wa taala julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci seexuna Ahmadul Xadim ñaanal sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadul Muntaxa yal na ko fi yàlla yàggal te dolli ak wéram. waaye ñaanal sëriñ Amdi Modou Moussa Fall mu di Amdi Modou Mbenda xalif général de Baye Fall yàlla na ko suñu borom may fan wu gudd waa ànd ak wér-gu-yaram waaye ñaanal nag jàmbaari lislaam ja nga xamante ne ma nga ca njaareem di borom Kawsara eh, di sëriñ Amdi Xadi Fall moom Serif Assane Fall yàlla may ko fan wu gudd waa ànd ak wér. ñu toog nag ak jëwriñam bokk ci ak njabootam di sëriñ Falilou Fall moom sëriñ Amdi Yaasin ñu ñaan suñu borom may ko fan wu gudd waa ànd ko wér te ko mbooleem rakkam yëpp ak taalibe yi ci liggéey bi nga xam ne liggéeyub bànneex la ci moom waaye liggéeyub dolli ko ak laxasaay la waaye liggéeyub soññewu la ci eh, yoonu murit ndax kenn nattabliwu na kër Cheikh ra lay dundal seen ruu mooy jot ndigal ci Serigne tubaa loolu nag tax ne sëriñ Fallou di wax ne moom ak cant ak ngërëm lot na ci aw làmmiñam bu bu mënoon a barkeeloo ci kàddu Serigne Touba googu mu wax ma ne kaay leen sant la ma yàlla dana woote na kaay leen sant la ma Serigne siidi mu Cheikh Abdoul Ahad ndax gis na ne waxtu wu ne li koy jariñ rek moom la koy joxoñ te moo di ko jox ndigal te xàmmeewut jëmmam jooju ak jëmmi sëriñ tubaa ndax njabootuk sëriñ tubaa gi ku la ci bo yàlla booleel kooku mooy sam sëriñ tubaa mu joxaatoon ko ab liggéey fii ci këram gi nga xam ne moo jàkkaarloo ak bassin Cheikh Mamadou Mourtada muy kër gi nga xam ne mooy kërug boppam ku ko mas a xam ci kër gi nga ko xam mu doon ko yeesalaat kër gi ginnaaw bu ngeen xoolee <clears throat> miir bi nii mu mel nga xam ne dëppale na ko ak jamono ak yanjite li nga xam ne def na ko ci ba ci lamp yeeg décoration li ci aju lépp xool magasin bu mag bi nga xam ne defaraat na ko ci biir kër gi xool waañ wi xool mbaar mi nga xam ne fi la sëriñ sii di di toog ni mu ko defaraate te yàqutoon dara ci bañ barki Dembo Ndiaye ba ñuy inaugurer liggéey ba ca kër sëñ Abdou Lahad Mbacké loolu nag tax sëriñ Fallou toog bi liggéey bi matee ñu ngi ko tàmbali woon le 9 juin waaye tey jii xam nga ne le 5 août la loolu war a nekk un mois vingt six jours te génne nañ ci lu toll ci fukki fan ak nangam ci tabaski gi yoo xam ne liggéeyuñ ko kon liggéey bi lépp boo ko doon xool doo ëpp ay weer ak fukki fanak nangam te loolu kon nattable wu ne liggéey bi bi ñu koy tàmbali lëbët seeb bi waaye moom day wax ne bàq bi gën a tooy mooy Serigne Touba moo tax bi mu tawee moo xam ne lañuy wut ca tool ya am na ci sëñ Touba te ci la gën a gaawee mu ne tànkam moom du ko génn fii ci kër gi lu ne dafa jébale caabi ji kaddu cant yooyu nag ak ay lenn ci ak njabootam di leen ko waxloo bu dee gi jëm ci sëriñ bi da koy waxloo sëriñ Abdou Lahad Fall euh, mii nga xamante ne bii kenn nattab lu ne li mu doon ci moom euh, bokk ci njaboot goo xamante ne bii seen wayjuram moom ñoom itam lu na liggéeyal nañ ko lislaam waaye di sëtub Cheikh Abdou Lahad Mbacké waaye loolu lépp mu jaay ko jënde ko ak taalibe jóge Ndar Fall ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi moom la sëriñ bi jox kàddoom ngir mu santal ko sëriñ siidi ndax cant gi nee na lott na ci aw làmmiñam su nappee danañ jox sëriñ Jiili Faal rakkam moom mu santal ko dongo yi ginnaaw bu leen sëriñ bi jotalee cantu boppam moom ñoon rakki boppam yooyu nga xamante ni bii nee na seen jëmm yi moo ko gënal jëmmi boppam ndax seenub taxawaay kon dañuy bàyyi kàddu gi ak Cheikh Abdoul Ahad mu jottali kàddu yi sëriñ Fallou yu jëm ci sëriñ Sidi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu jottale ay kàddu yu bàyyi ko Serigne Fall Fall mu Serigne Amdi Yaasin ñu fas yéene jottale ay kàddoom yoo xam ne dafa jëm ci kilifaam di yaakaaram di léppam ci fànn yëpp muy sëriñ si si xablaat ginnaaw ba mu nuyu ay kilifaam te ñaan di leen ñaanal muy sëriñ Muntaqa xalifa général des mourides ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko dellu ñaanal jàmbaaram ja sëriñ Amdu Moustapha Fall suñu borom dolli ko fa yàggal te wéral ko dellu ñaanal itam kilifaam sëriñam muy sëriñ Amdi Xadi Fall xalifa sëriñ Asan Fall ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko mu jot li ma ay kàddoom nag muy kàddu yi cant yoo xam ne làmmiñam lottu na ci mën koo tudd ngir xol ba lam ci ëmb lépp jëme ko ci sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ne hmm, ku ne xamoon na woy juróom ba Cheikh Abdou Lahad ci yoonu murit taxawaayam ak pëstéefam ak njàmbaar ga ak fit wa yaakaar ji sëriñ Touba amoon waxoon ne sëñ Abdou mi amoon am naa ci moom yaakaar yaakaar jooju suñ borom feddili ko mottili ko sëñ Sidi moomee daa bokk ci ñu dëggal yaakaar jooju sëñ Fall nag nee na ñu ngi sant sëriñ Sidi sëñ Abdou bu baax a baax a ndax moom sax moo ko war a sant waaye nag taalibe sañ naa sant kilifaam ngir taxawaay bu mu am ci moom. kiiraa kiiraay gum ko yiir ndimbal lum ko dimbali taxaw gum ko taxawu ci fànn yëpp ci féete ko ci fànn yëpp ci wàllu diggante baay ak doom diggante taalibe akub sëriñam sëñ Fall nee na mi ngi sant sëriñ si te di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi te wéral ko fi moom mboolem njaboot Cheikh Abdou gépp moom day nee na rëccuwul mukk lu mu ànd ak sëriñ Sidi te it waxtu wu ne day gën a feddil pas-pasam ak taxawaayam jëme ko ci moom ndax moom day koo xam ne ku neex a liggéeyal la liggéey bii mu ko bii mu nekkoon ak bu mu ko mës jox bu ne da ciy sant yàlla boromam te ci sant sëñ Tuubaa da ci sant Seex Ibrahima Fall ndax saa soo xamee ne jox na ko ndigal ndigal loolee day jàppandi ci moom nu mu ko bëggee da koy def defin woo xam ne sax bu dee liggéey boppam sax du ko mëne noonu. kon nag ne loola ñu ngi ko ci sant bu baax nag ndax fi ni ko sëriñ bi taxawoo ak fi ko sëriñ bi féete moom de lu mu ko defal rek matul asakay loola te moom de li li muy def ci moom da koy liggéeyale Cheikh Ibrahima Fall maamam da koy liggéeyale way juróom sëriñ Amdi Yaasin doxin woowu lay doxee ci moom amul lenn loo xam ne danoo ko doxee ci moom dudul doon ab taalibeem doon doomam di ko diglu guddi ak bëccëg lépp lu lu lu lu mu ne mu ne ca lu mu newul niwul ca loola nee na nag ñu ngi koy sant cant goo xam ne am na tàmbale amul fu mu yem ndax digg moom moom mm, buy lim taxawaay bi ko sëriñ bi taxaw rek ci wàllu doom ak wéyjur wàllu taalibi aku sëriñam nee na fi lay fi lay fanaan mënu koo jeexal ñu ngi koy sant nag moom itam bu baax a baax ndax. Euh, da ci am loo xam ne koy maye te sëñ Fallou ci pësteef rek lay dox nit nag bu dee dox ci ku ñu mu àndal ñu ne ci pësteef la ñuy dox euh, di sant waajur woon nag sëriñ Amdi Yaasin ndax euh, lu ñu man ci moom moom yi lañ ko jëlee ndax sëriñ Amdi Yaasin doonoon na jëmm joo xam ne ku ko xamoon xam ko ci ndigal ku ko xamoon xam ko ñeme ndigal ku ko xamoon it xam ko ci fulla ak fayda ak pësteef loole nag sëñ fallu da koo dolli lu fi bàyyam bàyyi woon benn ba ñaar. dolli na ko ba mbat fukk wala ñaar fukk kon nag ñu koy sant te di ko ñaanal te di ko gërëm te ñaan su mboroom yàggal ko fi yàggal fi mboolem njaboot gi ndax it kilifa moom day neex a àndal te moom kilifa gu neex a àndal la neex naa àndal ci poosam neex naa àndal ci aw ñamam neex naa àndal ci kana xar kanamam te ku ñëw fi moom boo ko koog moom da nga xam ne kilifa kilifa gu mat a jaxasool la kon ne ñu ngi koy ñaanal suñu borom musal ko ci cat musal ko ci ndog yi ak leel ko yéeneem ndax eh, eh, kenn ku ne kilifa gu mën a doon rek boo jëflanteeg moom da nga xam ne eh, borom pëseef a ngi nii. kon nag ñu ngi koy sant te di ko gërëm ndax itam sëñ sii di sa borom dafa leen a boole waaye fee nga xam ne fa lañ ko tuddee muy Cheikh Mourou Fadal Mbacké ndigal lu fa bàyyi ko dana fa def kamte kattan ba def fa loo xam ne mm, mm, loolee ku ñëw mën caa teg sa bët te it ko foofu rek fépp fu mu gis lu baax xam ne bu fu dugalee jëfam mu mu raw fas na yéene dugal fa jëfam kon nag ñu ngi koy ñaanal di ñaanal ay rakkam di ñaanal taalibe yi ndax lu mu mën rek taalibe yi sama borom dolli koo jàppale te yàggal fi sëriñ siidi nag mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba li mu yéene liggéeyal way juróom ya Cheikh Abdou Lahad sama borom ko ci lu kawe njortam sëñ fal na ngeen sant bu baax gërëm na bu baax sëriñ te di ko doole ñaanal su borom yàggal ko fi te ko ndax am na cant ci boppam te sëñ Sidi rek tax mu am cant ci boppam ginnaaw ay kilifaam nee na jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad kaddu yi fa tabaarakallaahu mat na sëkk tayit jot na te ak cant moom munta weesu rek jërëjëf te xeeti cant yëpp sëriñ Fallou nee na dajale na ko ci sëriñ Sidi am na sëriñ bi bayit wu waxoon. woo xamante ne bii ma ngi ko tënk ci làkk saraftu jërëjëf merci yaakaar naa ne bayit yooyu rek bu ñu ko jëlee sëñ sëñ Fallou làmmiñam làng wu dégg wax na ci sëriñ Sidi jërëjëf kon dañuy bàyyee kàddu yi cant yi rek ni mu ko waxee woon jëm ci dongo yi ak bokki dëkkandoo yi sëriñ Abdoul Khadir. di sant sëriñ tubaab bu baax di ñaanal Cheikh mun Mountakha suñu morom bañ ko fanu gudd ak wér ni noonu it lañ ko ñaanal sëñ Amdi Khady Fall di xalifa Sërif Assane neen mi ngi koy ñaanal di ko sant. suñ borom may ko fan fanu gudd ak wér ak mbooleem njabootu Serif Assane gépp di sant noonu itam sëñ am ni Moodu Mbend te di ko ñaanal it fanu gudd ak wér di sant sëriñ Sidi Abdou Lahad bu baax a baax te di ko ñaanal yàlla suñ borom may ko fan fanu gudd ak wér ba lépp lu mu naan ci toolu sëriñ Tuubaa bi mu am ci lu ko njortam dina kër sëñ Abdou Lahad gi ndax mu ngi koy sant bu baax daal ndax mbooleem lu mu sumb rek boole na ko ci jàpp na ko te téye na ko lépp nag ngir yàlla ak bi ak sëriñ bi rek moo tax mu def loolu mi ngi ko ciy sant bu baax di ñaanal it waajuram wa suñam di yaasin suñ borom yokk ay leeram te taaf ñu ci barkeem ndax lépp moom la kat moo ngi koy ñaanal tey sàkku mbooloom yëpp ñu koy ñaanal bañ ko fàtte fàttewu ko benn yoon gannaaw loolu nee na mi ngi sant mbooleem njaboot gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi bàyyi loon muy dongay tàmbulee ko ci jëwriñ ji nag muy sëñ Banda su tuddee sëñ Banda Diop nag mel na ne tudd na ñëpp ndax mënta lim ñëpp te mbooloo ma gis am na ku ne ca bopp mi ngi koy sant te di ko ñaanal yàlla di cant mboolem taalibe yëpp nag mi ngi koy jaarle si sëñ Banda Diop mii nag mu ngi mu jottali leen ko ndax lépp loo xamante ni sëriñ bi sant na ko ànd na ko ak ñoom ñu am taxawaay bu am solo bu ci taxaw nañ ànde woon ak sëriñ bi noonu lañ àndee moom am fu mu ne ay ca ñu ne ay amul guddi na amul naañ na amul sono jamono bu ne lu sëriñ bi santaane rek nekk nañ ca ci nañ ko tàmbalee ba na sëriñ bi ne ñaan ñu delluwaat ci itte yi noonu itam mi ngi sant njabootuk sëriñ Amdi Yaasin gii rawatina jëwriñ ji sëriñ Abdou Khadir mi ak mboolem njaboot gépp rek mi ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla ndax mboolem liggéey boo xam ne sumb na ko ànd nañ ko moom muy ci kër Serif Assane fu mu toll liggéey bu fa taxaw rek taxaw nañ ca nañ ca war a taxawee te moom mii tamit di sëñ Fallou képp ku muy sa jëwriñ Rousseau siggi ci kër Serif Assane rawatina kër sëñ Sidi gi ndax lépp lu mu fa war a taxawee rek mu ngi ko fay taxawee kon mi ngi leen ciy ñaanal yàlla bu baax di leen sant di ñaan yàlla mu defal leen taw tawféex bu baax. sëñ Fallou mi nga xam ne mooy jëwriñ ja biñ tàmbalee liggéey bi ba tey sëñ Sidi mii la fi bàyyi waaye sëñ Sidi ànd na kook ñoom te lépp loo xam ne sëriñ bi ma nga ca rek ànd na ko ñoom mi ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu defal leen taw tawféex bu baax di sant sëñ Abdou Lahad Diop ak mbooleem njaboot gépp rek sëñ Abdou Lahad il faut ñu sant ko moom it ndax moom fu sëriñ bi nekk rek fekk na ko fa ak njaboot gépp nag waaye sëñ Abdou Lahad mooy bunt ba mi ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal yàlla di ñaan yàlla seen ànd bi yàgg ci barke sëñ Tuubaa ak Cheikh njaboot gii nga xam ne mooy njaboot sëñam di yaasin gi nag sëriñ bi bi mu leen santee ba noppi mi ngi leen di ñaanalaat waaye mi ngi leen dolliwaat ñaax leen ndax ab sëriñkat bu santee ñaan sañ naa ñaax nañ waajaat te jotuwaat mel na soccet ak ndax ab baay faal du wàcc ab baay faal du wàcc liggéey bi bu sëriñ bi ñaanee ba yeewi leen nañ waajiwaat te xam ne beneen liggéey mi ngi ñëw ndax loolu rek moo tax ñu joxe suñ bopp loolu rek moo tax ñu jaayante jamono bu ne lu sëriñ bi ne ay nañ jóg waaj ba jekk bu ne ay ca ñu jóg ànd ak suñuy laxasaay doomi bàjjanam yi nga xam ne ñu ngi fi doon teew nag mi ngi sant ñëpp tàmbalee ko si sëñ Sadex Diop ba liggéey bi tàmbalee ba léegi loxoom fi jëmmam jugu fi ak sëñ sëñ Xaadim Diouf ak mbooleem njaboot gépp rek sëriñ bi daal nee na bég na mi ngi ñaanal waajur wi nga xam ne mooy sëñ Sidi suñ borom defal ko fan wu gudd ak wér ak mbooleem njaboot gépp bu liggéey bi jàllee liggéey bu mu ko joxaat mu ànd ko ak njaboot gi bu baax a baax a baax a baax moo ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal sëriñ bi suñ borom defal ko fan wu gudd ak wér ñun sëñ Fall ñu ngi lay ñaanal bu baax fan wu gudd ak wér mbooleem rakk yi ak ja ak jarbaati si euh, waajur yi ak mbooleem taalibe yi ñu ngi lay fan wu gudd ak wér ndax suñu sàkk nga fépp foo taxaw fas nañ yéene taxaw laxasaayu taxaw si sa ginnaaw ndax li jëf ji kat buñ fi rombee ñu ne sëñ Fall moo ko liggéey rek ñun suñu xol day daal sedd suñu sag la ak kër sëñ Assane taxawaay ba nga ci am ñoo ngi la ciy sant bu baax a baax ndax fa fa waajur wi taxawoon rek bu fa defoon benn tey yokk nga fa ñaar ba ñett waaye la mu so sëñ Moussa Saliou waxoon rek daf ne yoon wi ab tabax la bu ñuy tabax su fi mag nekkee ba bàyyi ko fi ka fa ñëw day jëlaan moo teg ci kaw rek mu dox sëñ Abdoulaye tamit dafa waxoon ni jamono bi muy yokk jumaa ji ñii nekkoon na xaar ba nawet bi wàcc mu ne nawet bu wàcc de xol yu nangu moo ko gën te xol yi nangul na Serigne Touba sa xol bi ni mu nangoo liggéeyal Serigne yàlla na la yàlla dolli tawféex ba daa donga yi seen xol bi gën a nangu ngir liggéeyal la ci zahir ak ci baatin ñoo sant bu baax di jégalu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fala ilaha illallah la ilaha illallah